ahousubillahi min asheytani irajim bismillahi irahmaaniirahim wasalaallahu wasallam wa baraka ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi din ñoo ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte ci ñu ci bis bu tedd bi ñu daje tey muy bisub lislaam di bisub yoonu murit bisub képp ku bëgg lu baax di bis boo xam ne rek euh, ñu ngi koy amale fii ci Mbàkke Bawol ci kër sëñ Alaaj Baara di koy amal kenn ci ak njabootam di sëñ Galas Amina moo ko ay waa këram mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom lañ àndal di liggéey sëriñ bi muy bis boo xam ne baaxoon nañ ko def xëy na at yépp yëpp ci bis boo xam ne rek dañ ciy daje di ci jokk ak mbokk ci seen biir waaye di ci si ay bernde di ko jox mbokk jullit yëpp muy jëf ju màgg ju am solo joo xam ne jëf ji am na solo waxtu wi koy defee am na solo ni koy defee am na solo euh, jëf ju am solo la ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne bu nit wooree ba ngoon nga jox ko mu ndogu da nga am yool bu toll ne bi mu am te yow loolu du ko yàq dara ci la muy am moom mu man fattara saay man kaana lahu mislu ajrihi képp koo xam daa woor ba ngoon jox ko mu ndogu da nga am lu toll ne la mu am ci ci ay tuyaaba te yow doo ko yàq dara ci la muy am loolu kon jëf ji buñ ko mën a defee rek jëf ju am solo la ñu def koy ci ci fukki fan yi mujj ci weeru koor te xam ngeen ne yéen sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne weeru koor fukki fan yi ci yi ci mujj mooy ci gën a màgg donte lépp lu màgg la ba ci laylatul xadr di guddi nga xam ne moom la suñu borom jagleel xeetu yonent bi sallallahu nga xam ne ñoom seeni fan bu gudd xeetu yoonu bi sallallahu bi ci ëpp ci li ñuy dund du ñu weesu ay soixante-quinze ans te xeetu njëkk ya dañ daan dund ay junniyaat ba lu ko jege biñ ñëwee nag suñu borom bokk ci lim leen baaxee mooy mu may leen maanaam li ñuy wax coefficient ci suñu examen yi nga xam ne day gàtt waaye dañ koy mën a multiplier a bari mu defal leen kon guddi koo xam ne da leen wax ne leen képp ku ci yàlla lam ci yud yool bi mu mën a jëlee ci bu jaamoon yàlla juróom-ñetti fukki at ak lu topp muy laylatul xadri xayru di ci xéewal yi nga xam ne da koo baax xeet yonent sallam guddi googu dafa sax ne ci fukki fan yi ci weeru koor la nekk nga xam ne yonent sallam moo ne woon na ngeen ko wër ci fukki yu mujj yi ne na ngeen ko ne dafa tool mooy ñaar fukk benn ñaar fukk ñett ñaar fukk juróom muy wéy euh, donte fukki yëpp rek lu baax la ku ko màng rek day xam ne jëf na jëf bu baax day xam ne jëf na euh, laylatul xadri du ko rëcc kon loolu ci baax ci xéewal yi mu baax xeet yonent sallam ci la bokk kon jëf ji buñ ko defee ci fan yu mujj yooyu rek mooy def nañ lu am solo te xam ne lislaam rek lislaam ci boppam yéen sallallahu laajoon nañ ko jan lislaam moo gën mu ne ngay joxe ñam ak koo xam ak koo xamut boo ko mënee nga nuyu ayul islaam xëy mu ne an tut'ima man arafta wa kon jëf ñu fi liñ fi dajee li lépp weesuwut jokk ak mbokk weesuwut joxe ay ñam muy jëf ju rëy joo xam ne it sëñ Moussa mu suñu laaj baara ñu ko ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér moom ñi xalifa sëñ baara ñëw na fekke ko euh, njaboot gépp ñëw daje fi am di jàmm yi ñëw mbokk kii ci dëkk bépp ñëw kon leneen amaat ci muy jokk mbokk boo xam ne xëy na waxtu xat na jamono xat na ba nit ñi jot kon ku leen dimbale ba wutal leen benn cadre boo xam ne mën nañ cee daje jokk seen mbokk bëri na ñu fi daje tey ñoo xam ne gën nañoo gisee baa bu jee gisee gën nañoo gisee ndoo moom loolu kon jëf ju am solo la kon am na solo niñ ko jëfee am solo rawatina nag ñi fi daje ñëpp ci ay mbooloo rek euh, dogee fi loolu di tuyaa bu judul jeex loo xam ne yool bi incha allah taala ñaan suñu borom mu nangul ko ñi nga xam ne ñoo ko taxawee muy sëñ galas ak i am di jàmm ak i bokkaale yi nga xam ne ñoom la ànd di liggéey sëriñ bi auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim naa wañu sant yàlla sëriñ Tuubaa bu baax a baax di am bëgg bu baax a baax di gën a santaat yàlla ba mu may ñu toogaat fii nii di ko santaat di wax ne am nañ bëgg bu baax a baax a baax ci bis bi ñu doon suñuy waajur ñu Cheikh Mouhamadou Bara Fallilou ko ci sàkkul ay ñaan yàlla def nañu jàmm ci jàmm salaam di gëna doole sant yàlla baax na di gëna sant mbokk taalibe yi ak xarit yi ak ànd jàmm ak soppe yi ñëpp ndax bis bi bañ ko tëralee ba tey kenn ku ne bàyyi nga sa yitte sa li nga lépp nga ñëw taxaw si ngir ñu bis bi jàllee rek loolu si jàll si jàmm ak salaam di sant mbokk yi bu baax nag di ko jiital si cant gi sëñ caacoo mi sëñ Abdou Lahad sëñ Pamaas ñi ak gaay ñëpp daal sant nañ képp ko xam ne tudd tur la waaye fàttewuñ sax nag ndax waaye sant nañ ñëpp daal ku yëpp ku nañ la di beral tamit ak cant ku ñuy wax euh, président Badiane dëgg yàlla suñu xarit la suñu lépp la lépp lu nekk na mag ca ñu si jàppale bu baax a baax a baax ko ñaanal suñu borom lépp loo xam ne bëgg na ko ci dëkk bi rek yàlla nekk ni ko bëggee ñaanal tamit suñu xarit bi suñu Abdou Lahad mi tamit li mu yéene ci dëkk bi yàlla yàlla ko ñoom sëñ Mbacke Faye ay Papis ñëpp ak képp koo xam ne jeune nga nekk ci dëkk bi Tambacke ñor la rek ñu ngi lay ñaanal suñu borom li nga bëgg a liggéey ci dëkk bi yàlla dafa leen nga ko wax rek li may wax ne yéen yéen jeune yéen avenir ëllëg dëkk bi comme ñu ñoo war a jàpp dëkk bi tey dëkk dëkk seen loxo lay mujj ëllëg ñoom nañ gën a xam loolu gën a taxaw rek gën a manko gën a nekk benn xam ne Mbacke suñu Mbacke la ñu ñoo ko moom di waruñu see xaar kenn ñu ñëw ñu war a taxaw jàppandoo dóorandoo xàccandoo di dóorandoo jàpp ne pour mbaak jëm si kanam ñu ngi sant nag bu baax a baax a baax sant mbokk bi di am euh, bëggoon di ñaan bi suñu benn xarit boo xam ni dafa nekkoon ñun si élevage bi ñu wax Omar Sow yàlla da ko jël ba démb mu mu faat ñu bëggoon nañu ñaan bu baax a baax si mbokk yi lépp lu fi tiyaaw yàlla ko suñu borom jox ba mu doon sëkk sëkk sëkk sëkk si barke Seydina ndax suñu xarit la woon te jàmbaar la woon ci yoonu Sëriñ Tuubaa bokk ndax ku ne xam ne màggal Tuubaa bu daan ñëw li nga def teg si ñun dafa noonu la ko daan indil jëf yooyu nga yëpp jëf ngir jëmi sëñ Tuubaa mat foog fekk daan rey ñu ngi ñaan kon suñu borom lim doon defal sëñ Tuubaa lépp yàlla na ko fa nekk mu fekk am nañ ci yaakaar baax a baax képp koo xam ne tamit nekkoon nga te nekk suñ borom may la seet yóbbu la sa aljana yi gën a kowe di gën a ñaan suñuy waajur rek ndax lii lépp ñooñu si nàmpatal mën nañoo nekk ci leen waaye alhamdulilah di sant nañ yàlla ba ñu kéré te sant nañ ci mooy liñ def nii li may wax gaay yi neen Sëñ Tuubaa yoon bi amul tànk ginnaaw tànk kanam la ndax loo def ren rek bu doon da nga def ëpp ndax fii tey suba rek maa ngi wax ak caacoo mi ñuy wax man sëñ bi ndax lii su nii ma ne ko lii day jeex Sëñ Tuubaa moo mel noonu wallahi te liñ defoon daaw dugal nañ ko ay yoon yoon yoon xam naa ne bu doon tamit ñaan yàlla yàlla suñu borom may ñu fekk waat ko rek kenn bañ a manqué yàlla may ñu doolay post mit waaw xam nga li tax ñu mooy li nga wax léegi boole pour boole yi ñu nekk xam ne Mbàkke moom sëñ bi du Mbàkke du pour kenn rek pour ñëpp la ku jàpp ne Mbàkke yow yaa koy doxal yow dong yaa ngi nax sa bop Mbàkke ñëpp am wàll te ñëppay manko tamit taxaw liggéey ànd Mbàkke nekk baleen dëkk baleen kar xaram tamit la sëñ fa leen ñu ngi woo sëñ ñu ngi woo jeunes yëpp nag ci loolu tamit a santaat sëñ jeunes yi yi ndax man jàpp naa ne man sama bop man la am cant lépp lu ma woot na kenn du ma si jiitu lépp lu si waay jàpp suma la bàyyil nga bàyyi loolu ak cant la ci man maa leen sant bu baax a baax a baax jeunes yi ten ñaan rek lépp képp ku la mën a jàppale ku ne daal man maa ngi ànd yow jàppale ci loolu di sant sëñ Saliou muy Mbàkke bu baax a baax di leen sant ci sëñ sëñ Moussa Fall moom sëñ Baara yàlla xam ne ndogu mosu ko defee àll lu fii la tey la ko fii la ko mos a defee ndax sama jëmm ji sëñ Gass Kaltoum amul ama ko dawee ak jant sëñ Saliou mi ak ñoom sëñ Cheikh Bamba waa ko sëñ baar yëpp amu seen fay ñëpp dagg seen it ñëw ndax doomu baay dafa neex te doomu baay xel nga ñëw mais mhm. maa ñoom bu ñu nekkee day mel ni ay doomu bàjjen doomu kii ki noonu laa mel moom bu ma fi da nga jàpp na doomu bàjjen laa waaw jeune li ñu bëgg lépp li ñu demandé seen seen seen seen droit la kon ñoom ñu xam ne ñoo nekk ñoom ñoo si état bi ñoom tamit war ñoo jos jeune Mbàkke yi bu baax a baax baax te bàyyi par parloo beeg yooyu yooyu amul solo ñëpp lañu war a yemale ndax képp ku ne Mbàkke la ñor rek waroo xool ne kii ma landal kii ma landal dama laa déedéet dañoo war def ñuy góorgóorlu ku sañ ablaat fami li muy def nii dañ ñëpp si waroon jàppale action sociale yi muy def nii si si koor gi nii ci war a taxaw jàppale ko ci loolu mooy doxal dëkk bi mais nit ki bu ne yow yaay yow def kenn def loolu da ngay nax sa bopp dëkk bi ñëpp ko moom loolu la woon waaw di sant ñëpp di sant gërëm ñëpp nag ñaan nag suñu borom bu doonee ñu ñaan édition bu gën bii rek dem ba ko yóbbu ci gaar bi mën na am nañ yaakaar ne bu doon dem yóbbu suñ fàllu mu sëriñ Galas Kaltoum mboolem njabootu Alaaji Baara gépp waaye nag di ci nuyoo bi nag Cheikh Moudou Fadal mi nga xam ne di suñu rak di suñu xarit gisuñu lépp yaakaar naa iftaaru jama bi mu def ñu koy wax dog boo xam ne maanaam mën nañ ne ñëpp ci boole ñëpp ci daje ni ko sëñ Mamour tuddee léegi rek li ko li ko wund dafa bari waaye njariñ yi kenn mënu ko lim wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha yaakaar naa kër bu ka fa mag ñëwee ka fa gën a nekk tànk ñëw kër gépp ñëw nañ te Cheikh Modou Moustapha sëñ Mamour wax na ko léegi fi la léegi ki nga xam ne it moom la Cheikh Amadou Lamine mu gis ci leer ñëw na kon mën naa ne kër sëñ Baara ñëpp ñëw nañ muy loo xam ne nag sëñ Galas wax na ko léegi sëñ Moustapha kenn ku nag xam na ne yaakaar naa ren jii du ma ko tuddee sax dogee àll ndax fii mu dogee du àll ndax fa mu kër ga mu jóge ak kër gii mu ñëw ñoo bokk borom lépp la sëñ bara waaye doge fi nga xam ne moom fa la ëpp lu muy nekk yaakaar naa mi ngi koy doog a def ci weer wi du lu këram. donte fii këram la waaw day day day génn kër nag bu am ñaari bunt rek waaye lépp génn kër gi la loolu nag su amee ah, lam fi fekk taxu koo jóg waaye kim fi fekk moo ko tax a jóg muy rakkam di xaritam du soppeem bi léppam ah, yaakaar naa suñ galas olof dafay wax naan diw bu ñu nee baax na ndax bokk yaa ko wax te ginnaaw man mi yàlla nattoo ma yëkkati kàddu tey ñoo bokk benn wayjur rawatina nag may wax tu turu sunu kilifa bu Cheikh Amadou Moustapha bu jox ndigal Cheikh Amadou Fadal euh, njabootu Cheikh Amadou Lamine gi amuñu ay xaar ma yàlla waaye moom da caa raw yàlla rek tax may wax man mii du jaar sama tur am na turu may wooyee damay bañ di wax ci bala ni ma koy wooyee waaw waaye moroom lañu defante sëñ Moustapha mii dama koy wax booy léeg-léeg mu naan ma grand kon loolu lu yàlla defal Cheikh Amadou Lamine la du ma muy sama xarit mais xarit ñëpp la rakkam jii di sëñ baara it bañ naa ko man du ma jaar ci turam père laa koy wooyee kon loolu lu yàlla defal Cheikh Ahmadou Lamine la waaye moom mu am jukkoy boppam nag lii muy def muy li tax ñu daje bi tey ku xam way juróom mu jigéen xam na ci loolu la mas a nekk ba dem muy sunu wayju soxna Amina Gueye lu mën a am ci àdduna joxe ñam ak gënal li ñuy li ñuy néew néew ay at ci ci ab jotaayam donte bu doon fanweeri at fekke nañ ko waaye dégg nañ lu jiitu ñuy juddu ci loolu la nekkoon ba lu waaye gàtt gat ab dégg-dégg wala nga gàtt ab xam-xam ci moom xam nga ne ajjuma ju jot dana togg fi ay booli di ko yóbbu Tuubaa séddale ko ci loxol boppam ñu ba dañuy togg ndab donte lu baax la dem joxe ko dëppaat waaye moom mooy takk ndigam séddale ko ba ba jeex nga xam ne daanaka mën naa ne takkusaan lay ñëwaat ndakke wala léeg-léeg timis la fi ñëw kon kooku bu ne moo jur diw mu def lu mel nii loolu wur laa jaaxal. jamono ji ñu nekk nag day jamono joo xam ne kenn ku ci nekk yaa nga la ci sa baay nekkoon wala la sa maam newoon am na ku fi wax ne daa judd fekk maam di way muy way ko wàcc na kii ne xaalisu mbër lañ ko ngéntee kooku muy bëree kooku wàcc na waaye kuñ ne si Mbodj Lamine la jur soxna Amady Gueye ñoom ñaar ñu ñu xam la ci lu mel nii ko wàcc na kuñ na nag royal sa baay nga bañ la sa baay nekkoon a baaxul kuñ na nag royal sa wajur wu jigéen nga mën ne sa wajur lekk na baaxul waaye ku xam ñaar ñi ko seq dama jëleli Cheikh Amadou Lamine waaye sunu wajur wu jigéen wi ko seq ko ci yaatal këram gi fii Mbàkke boobu moom mii tuut tànk la dama naan ànd ak sëñ bi di ñëw waaye dafa daan am bool yoo xam ne ña fay añ kenn ku nekk boo ñëwee da nga naan sa morom nu mu sant loolu ñun fekke nañ soxna Amina daan na def bool yoo xam ne ay ay ay ay ay ñoo xam ne dëkkuñu ci kër ga ñoo ci daan lekk muy nit ku am social nag ndax ñun xam nañ ci dara te mu nekk nag dëkk boo xam te ni ñi ko yàlla booleel muy Mbàkke ndaw ñu ñu bari dañ leen joxul considération dañ leen jàppee nit ñu baaxut dañ leen jàppee nanga dañ leen jàppee nangam moom nag gisul loolu mu ñëw nag samp ci biir ndaw ñoo ñu jàppee ñu baaxut mu ànd ak ñoom guddi ak bëccëg commissaire bi ma sa nekk fii dama fàtte comme doon ma sama woo benn jour ñuy waxtaan safala dañuy waxtaan ba egg ci mënuma kuy sawaay ma ne alaaj baar mënuma kon ma ne ko bàyyi lañ bokk mu ne moom day dégg naa ko waaye ku jàmbaar la ndax gone yi nga xam ne dañuy tuux dañuy naan ak dañuy def nangam ak nangam yëpp moom moo leen dajalewaat kon kooku ndaw la ci gis-gis nii waaye jëfi mag lay jëm waaw ku bëgg lu baax la ku ku nangoo sonn ci nit la waaye ku jaxasoog ay bokkam la itam waaw su ma tuddee sëñ Moustapha tudd soxna maam Moussa mi nga xam ne moo mag ci jigéen ñi maa ngi bi ñuy ñëw kon kenn desul ci njabootu El Hadj Baara ñu ñëw na fekk fi ay xaritam su ma tuddee sëñ Mamour mii tudd na képp ku sant Mbàkke waaye tudd naa képp ku sant Buso kon kenn manqué wul te kenn ku ci nekk li li ñuy woo sunu borom jox nañu ko fa sunu kër waaye jikkoom ak ak ak melokaanam ak taxawaayam moo tax kenn ku nekk bàyyi la nga jàppoon nga kon ñu leen di xamal daal ay bokkam sant nañ ko ay xaritam sant nañ ko waaye ay taalibeem it sant nañ ko loolu mën naa ko wax ci turu mbooloo mépp ndax xam ñoo bokk lépp waaye xam naa lu bari ci nekk. dañoo bokk benn liggéey ci genn wet dama jax dama nekk Touba nekk ci ndaw ñi waaye moom ay ndawam ñoo gën a naqar defar samay ndaw ndaw yu Mbàkke kenn ku ne xam ne ñoo gën a naqar defar ndaw yu Touba waaye loolu lépp nag mi ngi ci liggéeyal maanaam liggéey bu am solo waaw liggéey bu am solo ba tax na tey ndaw yu Mbàkke am nañu valeur ndaw yu Mbàkke am nañu représentatif ndaw yu Mbàkke am nañu koo xam ne teg na leen siraatal mustaqim di leen liggéeyal di leen tegu yoon ñu liggéeyal Sëriñ Touba te ndaw la ni ñoom waaye fexe na ba fi mu tey ku ci yoroon loolu bàyyi ndam faal di xëcc donc mu mu mu génn saxaar boo ko séenee da koy denc war ma jooju ñëpp jox nañ ko te nag loolu jikkoom te loolu lépp ko ko may nag mooy lépp loo ko gën a bëgg lu dul bàyyi la sëñ galas lu ko gën a bëgg lu dul sëñ tuwaa mu bàyyi la sëñ tuwaa la mu da kenn waaye leneen loo mën a yor mu alal ba ci mën mii wallahi ansi keneen ak keneen keneen bu yoree dara boo ko waxee bu dee montre boo ne ko sa montre bi rafet na mu dekk jox la bu dee nangam boo def nangam mu tekki jox nit nag bu demee ba alal ji ñu jàpp ne moom mooy mooy mooy doxal àdduna soo ko xoolee bët bu rafet dong mu bàyyi la nit ku baax ñu noonu kon nag dañ ko ñaanal yàlla suñu borom gën koo taxaw bu baax sàmm ko ba yoon wii mu mu jaar suñu borom defal ko ci taw te te te nañ ci njort bu baax a baax nag. solution Mbàkke daal am ngeen koo xam ne bu leen ne woon fekkuma fi sëñ Touba nangam raw na ma bu leen ne woon fekkuma fi Mamour Diarra nangam raw na ma. ab sëtam a ngi nii bokk ci li sët yu sëñ Tuubaa doon ñaan ne maa ngi ñaan sët yoo xam ne saa su nekk dañ fi nekk di dundal sunna si Yonent bi alayhi salaatu kon kooku mi ngi nii ba bañ na ko ba kër gi boo fi dugg see li ngay dëkk gis mooy fi ñuy jaamoo yàlla te àdduna nag pàkk bu fi am te boole woo ci fi ñuy jaamoo yàlla yaa ngi nax sa bopp bari na ñoo xam ne danañu faatu ñu dugal leen ci jàkk fanaan na leen ba bët set jàkk ji di leen móolu naan génnal fi fii ndax yow miinu ma la kon nag boo duggee ci këram fekk fi eh, néegub yàlla boo xam ne bala nga koo tëj bët moom ñaare moom da danga ko gis kon ko ku jaamu yàlla ñor la kon nag eh, nañ ko ñaanal yàlla sunu borom gën koo sàmm bu baax ngeen xam ne daal bu leen ne bu fi sëñ nekkoon nangam moo xam Seexul Xadim la wala Mamour Diarra ab sëtam ngi nii boo xam ne saa ku topp ci moom dana la wommat teg la ci yoon bi nga xam ne bu ëllëgee boo gisee ak Serigne Touba doo am lenn lu la naqari ni ko sëñ Mamour waxee rek nit bu wooree ba ngoon nga jox ko lu mu dogee. moom day am tuyaaba ju toll da nga am yow it doo ñàkk tuyaaba euh, jooju ndax li loolu koy firndeel mooy kenn ku ci nekk ci ñun ñi rek am na benn vidéo bu nekk ci sa téléphone boo ko envoyé nii ndax da nga ñàkk vidéo doo ko ñàkk kon kay buñ na laa da nga am tuyaaba ju toll ne tuyaaba jëm am war nga neex naa gëm ginnaaw tuyaaba yow def na loo xam mën nga ko envoyé mille personnes surtout yow da nga ko am waaw bu sa vidéo nekkee cinq minutes yow ki ko envoyé doo am six minutes mukk mbaa boo am minutes yéen ñëpp yéen a toll kon lu baax dañ ko war a tasaare kon lu baax dañ ko war a jamu ba àdduna yëpp teg seen bët te nag lii lañ wane war a wane jamono dafa toll foo xam ne léegi maanaam nit dañ koy xam téeméeri at wala at yu bari ci lu baax benn bis rek sunu borom natt ko mu juum ñu ne diw de bett na ma diw de nangam diw de nangam daal di bëgg nëbbu nag lu baax la mu nekkoon lépp ta loolu lu koy lool loolu seytaane la kon nanu góorgóorlu ci jaamu yàlla waaye nag jaar ci yoon bi nga xam ne moom lañ seen Tuubaa xalal ngir bu ëllëgee suñu dajee ak moom ñu bañ ko ñu bañ ñu bañ am lu ñu metti ñoo ngi sant ñëpp bu baax nag di wëlbati ko nag di sant koo xam ne sëñ bi tudd ko léegi waaye jëf am nu mu toll faaw kon sant gi day mën a yaatu muy président Badiane yàlla xam ne miinente wuñ waaye gis naa li mu jàppee sëñ bi waaye rawatina bis bi tamit suñu ko tuddee nag mën nañ tudd nañ ku ci jàpp amoon yéene ndax nit bu dee def te wax taxut muy def suñ ko waxut wurtu am lu ko naqari kon kuñ tudd wurul a met ndax tudd la taxutoon ngay def a lu tax ñuy tudd kayit mooy moom la ñu féetale bis bi ci ne ko ci ne àddina baaxoo sëñ bi wax na ko léegi da ko fekk Makka waaye amoon na yéene ñëw waaye xelam ak jëfam lépp ñëw na te loolu mooy li am solo kon président ñi ngi lay ñaanal bu baax sa tur wi nga xam ne euh, yaatu na léegi ci jamono nag waaye wuuti na ndax président yi daa bari léegi moom ku yor ñaari nit sax na may président nangam waaw waaye nag ñu ngi lay ñaanal suñu borom li ngay mébét yàlla jàppale la ci ci ci barket bis bii nag fi nga xam ne sa sa jëf dugg na ci sa lépp dugg ci daal ñu ngi ñaan bu dee ne euh, na gën a yokk te gën a kawe ci barke Seex Xadim kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu Cheikh Moudou Moustapha ak njabootu Cheikh Moudou Lamine Bara gépp waaye rawatina nag Soxna si Mbàkke sëñ moom xam maa ne Soxna si Mbàkke ñor na ko ndax mi ngi koy baamu rek waaw kon nag Soxna si Mbàkke waaw noonu la ñu mën a tuddee nag waaye ndaw amatul fii nag gis nga ki ngay jàppe ki ngay jàppe ndaw borom masuliya la borom responsabilité la waaw am kilifa gu ne mag ak màggat ñoo am mais ndaw amatul mag ak màggat waaye gone amatul waaw man soo disons nag gone parce que Sénégal da am 45 ans naan ñun jeunes yi ba kañ am naan ñun jeunes yi la waaye ndaw amatul koo gis fi moo yorub Jakarta wala mu wala mu yor leneen lu muy liggéey xamal ne am na ñu mbàyyi ca kër ga ñoo xam ne moom la ñu xaar kon kooku ko am responsabilité la loolu nag la ci jiitu mooy nga xam sa bopp parce que nit du gëm boppam mais nit day xam boppam. boo xamee sa bopp rek xam li nga doon xam li ngay peese xam fi nga jëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi